asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah vendredi 8 janvier 2021 dañuy ñëw ak yéen ci yëglekaay yi suñu lamb la ñuy xëy doore ko yëglikaay bi di sunu làmb nag moom tey xëtam mu njëkk fa mu ca xëy fenn la géejawaay daal la xëy dugg tey toppal ñu mbër nga xam ne ni ay tanoor lañu nekk fa nga xam ne mu di ca géejawaay comme ca njëkkee nag moo di Balla Gaye numéro 2 mi nga xam ne yëglikaay bi dafa jàpp ne maanaam at yu mujj yi maanaam ñett yi ñu génne daal boo xoolee def na ci lu toll ci ñaari combat am ca ñaari victoire ak la nga xam ne nii moom moo di benn année balance mu mel ni ki nag keneen ka ca di Lac de Guiers numéro 2 bi jàpp ne moom ñaari combat la am ca lu toll ci benn victoire ak benn défaite ak benn at boo xam ne toog na ko bëriwu ko muy année balance bu fekkente ne guy gi la moom tamit benn combat la jot a def am ci benn victoire ak ñaari année balance lees numéro 2 moom moo ci gën a mettele ndax moom boo xoolee ñettat yi yëpp boo xoolee bëréewul trois année balance daal la tegle fu mel ne ki tey kaay bi daal foofa la xëy andil ñu ab jàngat ci mbër yooyu nga xam ne ñoom la ñu tudde ay ténor te ñu nekk fa nga xam ne nii moo di ca géejawaay keneen koo xam ne nii moom yëglikaay bi dafa xëy ñëw ci moom ci combat boo xam ne moo koy xaar muy Siteu ma dëkk ca jàmm gën Lansar yëglikaay bi nag moom la mu gis mooy boo xoolee ay defetam ak victoire ñëw na ca onze victoire Siteu jot na koo dajale ak cinq défaite défaite ya ña ko ca daan bokk na ci ka nga xam ne moom moo di Mame Balla numéro deux ak ka nga xam ne nii moom moo di Boy Sey Sa Thiès ba ci guy gi moo tax yëglikaay bi nag di ko dànkaafu ci beneen défaite boo xam ne bu ko dalee ëllëg mbaa du metti ci moom ci diggante ma ka nga xam ne nii moom moo di Papa Sow yëglikaay bi moo xëy ñëw tey wax nu lu mel ne ki noonu Papa Sow nag écrit ba mu nekkoon moom de Fass mu mel ne ki nag fi nekk nii lañ cay wax mooy diggante Fass ak Ndakaaru fusion ba daal la yëglikaay bi nag lan moo cay doon ngañaay la ci ñenn ñi ak perte ga ci ñenn ñi bi nag jàpp na ne bu fekkente ne moom dajoo nañu ànd dok nekk benn di liggéey yëglikaay bi jàpp na ne bu keroogee moom bénéfice ba dana doon ci loo nga xam ne ni expérience daal Fass wala boog Fass ci wàllum administratif professionnalisme waxee dana doon loo xam ne bénéfice lay doon ca waa écrit ndakaaru ba nga xam ne fekk si nañu faas wala faas ga leen fekk si bu fekkente ne tamit ci wàllum faas lay doon danañ su keroogee ñoom itam xam-xamu kati ak na nga xam ne ni daal loo xam ne tamit waa faas danañ ca la nga xam ne ni moom loo xam ne yëglikaay bi jàpp na ko mooy lu toll ci wala jàpp loo xam ne ni daal faas mu ngi koy dund muy ay defet yoo xam ne des day metti mën naam bu jaxasoo ga amee mu dañ ci moom ndakaaru tamit yëglikaay ba jàpp na ca loo xam ne ni ay xalem yoo xam ne ni ñu ngi ci écrit ba yoo xam na consommation boobu amee mën naa tax ñoom itam ñu gën leen a gis seen i lamp gën a leer leneen loo xam ne ni ba tey yëglikaay ba ñëw na ca gis ko mel ni ki nag est-ce que règlement yi nga xam ne Fass mu ngi koy doxee ndax dana arrangé la nga xam ne nii moom moo di manaatse ya nga xam ne ñoo nekk ci kiri Ndakaaru yëglikaay bi daal tey ci gëstu Abdoulaye Dembélé moom loolu la xëy toppal ñu ko ci fa nga xam ne nii moo di fusion ba nuy wax ci diggante Fass ak fa nga xam ne moom moo di écurie Ndakaaru Mame Balla numéro un moom mbay guy gi la war a bëreel ka tëgg combat ba moo di Assane Ndiaye Mame Balla nag moom la mu xëy di wax moom nee na leer na ko nañ nee na daal daal diggante ak mbay guy moom amu ca sax xel ñaar la mu fas yéene def mooy jàmmarlu ak moom wan ko boppam dal di ko daan dem wëri leneen loolu may waxe ka nga xam ne moom ki nga xam ne moo di Sibel ak ka nga xam ne nii moo di Bébé Saloum numéro 2 combat ba nag ka ko taxawal du kenn ku dul ka nga xam ne nii moom moo di Fay Production yëglikaay bi di sunu làmb ba tey moo xëy ñëw tey dinu wax lu mel ni ki noonu buñ fa jógee dañuy dem fa nga xam ne nii moom moo di ci record record moom dafa xëy ñëw tey ci écrit ak juróom juróomi at yi nga xam ne nii moom la ñu mujje yëglikaay bi ne écrit wàllu loo ci mënti dégg moom ñu ngay dëgër dëgërlu di góorgóorlu ndax nag yëglikaay bi xëy na seen i combat ci 102 combat yëglikaay bi ne am nañ lu toll ci 53 victoire ak 49 défaite mu mel ni ki nag yëglikaay ba jàpp na ne kon daal soo bëggee dégg-dëgg 51 pour cent de réussite daal am nañ ko mel ni ki nag ña nga xam ne ni daal ñoom ñoo di waa écrit wàllu moom boo xoolee seen i mbir day loo ci mën a dégg ay jàmbaar la ñu wàllu boog wut di dëgër dëgër lu bopp ba tey keneen koo xam ne ni moom bëri woon na ak tête dafi lékkri waalo di Papa Sow yëg bi xëy na tey ñëw ci moom ak la nga xam ne nii moo koy xaar ci 2021 bi daje ba mu war a dajeeg Siteu nga xam ne ni toog na ko bëriwu ko muy ay année balance ak ndam loo xam ne yëg likaay bi jàpp ne ne daal war na koo mën am la ko waral nag yëg likaay bi ne na ko amee mooy tontu boo xam ne dina ko tontu la nga xam ne ni moom moo di écurie Fass ak leneen loo xam ne ni bu ko amee muy ndam dina tax tamit xale ya nga xam ne nekk nañ ci ginnaawam daal am confiance bu baax baax ci écurie bu bees ba nga xam ne ni taxawal nañ ko record xëy ñëw tey wax ñu lu mel ni ki noonu ba tey bu mu demee fa nga xam ne ni nag moom moo di ci Equivox moom mel ni foofa moom danañ fa fekk Fallou Ndiaye moo xam ne daal seq naag ña nga xam ne ni ñoom ñoo di waa Equivox waxtaan woo xam ne wu yaatoo yaatu la ba tey mbir mooma mu nga foofa waaye tey moom li ñuy ñaan rek mooy ajjuma ji yal na yàlla def mu nekk ajjumaay jàmm luñ ci ñaan yàlla na ko borom bi nangu barke yonente bi sallallahu alayhi wa sallam te bu ko nangoo nag mu jaare fi dàqal ñu corona ak bépp feebar boo xam ne jaaxal na àddina bi mu jóge fi ba faw xulle asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk nuyuwaat naa leen siyaaraat leen ñaanalaat leen jàmm di ko sàkkuwaat ci yéen ah di leen ñaanal jàmm si àjjuma ji rek tey ñu ngi le 8 janvier 2021 ñuy ñaan yàlla rek hmm? ah, a defal ñu saxadatu daara yi ni barke yonent bi sallallahu alayhi wasallam di béggee ñëpp di ziar ñëpp tey nag yëglikaay bi xëtam bu njëkk tey ah géejawaay la xëy tey dugg fa moom sunu làmb kom mu fa duggee nag gëstu daal la def ci ñeenti mbër yoo xam ne ay ténor la ñu wala juróom yu fa nekk moo xam Balla gay 2 la de guy gi ba ci ki nga xam ne nii moom moo di Elton ak seen taxawaay ci at yi nga xam ne moom lañ génne maanaam ñetti at yii bu dee Balla la boo xoolee ci yëglikaay bi ni mu ko waxee maanaam deux combats deux victoires benn année balance boo xoolee Lac de Guiers numéro tamit deux combats benn victoire benn défaite euh, ki nga xam ne nii moom moo di guy gi euh, moom benn combat la jot am am benn défaite yi ci des ay année blanche la maanaam waaw moom ay année blanche tamit am na ko euh, kii di Elton tamit boo xoolee benn combat la am moom benn défaite ak deux saisons blanches les deux moom trois moom gëj na bëri trois saisons blanches la def moom ñett i loolu na ko yëglikaay bi tënke ah loolu nag li ko waral mooy xëy na boo xoolee at yi ñu passé dafa xaw a ralentir waaw parce que na daaw bu saison bi continuer woon ñoom ñi ku ci ne di nga wàccaat ci géew bi bëre ndax ku jëloon nga mën naa ne sa combat parce que ñu ngi ko doon wax waaye yàlla dogal na mujj ñu mën a bërewaat ndax coronavirus bi ñëw ba tax na ci ñoom ñu ci bëri ci ñoom jotuñoo bëre daaw loolu bokk na ci li nga xam moom moo indi loolu nag moo tax ñuy ñaan yàlla rek corona bi dem tamit ba làmb ji tegu fi mu tegu woon ba promoteur yi mën a tëg ñeme di tëg mbër yi parce que mbër yi ah dañuy dundal làmb ji mbër yu mag yi faw ñu parce que seeni bés dafa bokk ci li nga xam ne day taaral làmb di ko dundal donte mbër yu ndaw yi itam ci lañ bokk parce que li tax mooy mbër mu ñii ñëpp ay mbër yu ndaw la ñu woon ndax ku ci ne am na bi ngay nekk xale di ñëw ci làmb ñun suñu kanam la muy Balla gay muy Elton muy Lac lees ñoom ñëpp seetaan nañ leen mais ñu liggéey ba egsi ci niveau bi ñu yegsi kon defe naa nag li ñuy ñaan rek mooy ah, corona bi jeex promoteurs yi mën a tëgg combat yi nga xam ne nii moom la ñu soxla yaakaar naa ne ñoom ñi ku ci na tey eh, defe naa jël nga combat wala boog Lac 2 ak Elton ñoo ci amagul combat mais Lac de Guiers 2 ku xam ne na am na naa ne fi mu nekk nii moom ah euh, waaw ñi ci des rek la ñuy ñaan ñu am ay adversaire comme seen yeneen morom yi tamit ñu am ay adversaire ba tey bu ñu continuer ci yëglikaay bi sunu làmb ak Siteu moo xam ne daal ah juróomi defet yi nga wala boog nga xam ne am na ko si làmb moo xam Mame Balla mi ko njëkk daan numéro 2 Boy Sey ak ka nga xam ne moo di Sa Thiès bu ci guy gi yëglikaay bi nag moo tax mu mel ni ku koy dànkaafu tey ne ko ndax cinquième defet bu amee du fatal ci moom ah loolu moom yàllaa xam waaye loo ci mën a dégg daal combat bu capital ci la jëm moom Siteu muy digganteem ak Papa Sow ndax li ko waral mooy Papa Sow ku ne xam na fa mu jóge ci Fass ak itam ku ne xam ne ne xaw na toog tuuti lu yàgg bëriwu ko tamit xaw nag tamit gëj a am defet kon mbër mu mel noonu nag mu taxu ci fa mu dëkk muy parcelle ubbi feekri amaat beneen encadrement ak la mu xamoon boole ko defe naan ku jëm si ci moom war nga suur ne ka jëmoo ci lu yomb kon c'est tax xam na ne jëmul ci lu yomb te itam ku ne xam na ne moom da koy wax ndax ku ne dégg na ne moom mu ngi wax ci yoo xam ne Papa Sow ku ko jox daal di jeex bëree ba ku koy def da ngay jéem a def le tout pour jéem a am ndam waaye combat la boo xam ne ñoom ñaar ñëpp ay danger la mooy li am ba tey yëgri Ndakaaru Fass seen fusion daal yëglikaay bi xëy na tey jàngat ko ci la mu leen mën indil ku ci ne ci ay jafe-jafe ak ay njariñ waaw ànd nag saa yu amee rek moom loo ci mën a dégg ku ci ne dina nga am loo gañe ci sa morom ndax dafa am loo xam ne nii xulle du mën a ñàkk ay bu ñu dajee ànd bokk ndey bokk baay maanaam la nga xam ne mooy njariñ li defe naa a jafe bu fekkente ne dëgg loolu bu amee ku ci ne la nga xam moo xam xam-xamu jóob

di xale boo xam ne bu dogu la ci combat yu mujj ni ñu ko gisee mu koy bëri Mame Balla nag daa nekk koo xam ne ah defe naa ci làmb maam Balla na ko la te am la ko maam Balla wax a dem la muy mbay ak na muy combat boo a neex a gis mujj a gis mujj a gisee mu bëree defe naa lig Nicolas ko tëggoon selemele daanoon ko fa waaye xale la boo xam ne tamit bu am avenir avenir u làmb la ñoom ñaar kon a ah ñu ngi wax que le meilleur gagne di féliciter Faye production moom tamit vraiment am na solo trop trop trop waaw gis nañ ko fan yi muy fësal ay combat yu am am solo waa waa waa jas moom waaw waa jas amateur na ca jas moom ah déggoowuñ ci kawi kàddu ci wiklo bi ñii dañ ne waaw ñii ne déet loolu la yëg likaay bi ba tey xëy wax nu ko moom sunu làmb ba tey bu nu fa jógee ñëw record ak écrit waalo ah cinq ans yu mujj yi ah boo xoolee cent deux combats cinquante trois victoires quarante neuf défaites moo mel ni yëglikaay bi jàpp na ni waalo daal lak dëgg dëgg écrit boobu daal ñu ngi meñcee maanaam daal ñu ngi dëgër laay ñu ngi taxaw fa nga xam ne ni moom mooy waa bàyyee bàyyee maanaam bàyyee ñu maanaam ñoom ñu ngi dee muy dëgër maa ngi jéeglu waaye ñu ngi tée muy dëgër ah mu écrit boo xam ne defe itam am na ñu mérite ndax écrit waalo écrit séeréer écrit Fass écrit Njambur ah écrit Mermoz écrit yi boo xoolee ay écrit yu écrit caaro yi ci la bokk écrit écrit Pikine bu njëkk ba écrit lañ yoo xam ne yu fi yàgg lañu yoo xam ne nii vraiment tey waree nañ seen bopp mu écrit wàll nag bokk na ci écrit boo xam ne bu ñu war a defal mention spéciale la ndax defe naa yoo xam ne yenn yi déggante leen wala nangam mais waalo moom ak tey yaa ngi leen di dégg waaw mu écrit yoo xam ne ba tey ñu ngi fi di ay écrit yu yàgg waaw écrit yu yàgg kon defe naa bu ñu nekkee fii ba tey ah di def résultat yu nii jar nañu féliciter jaajëfal leen te loolu lépp li ko waral mooy encadrement rek ak bañ mu mujj puso bi mu réer waaw Papa Sow it yëglikaay bi ñëw na ci moom moom it ah daa itam day la koy xaar awr sas la ci 2021 digganteem ak Siteu ndax jéema amaat victoire ngir at yu bëri yu mu toog amul ndam tamit fexe ba tontu Fass ci jóge ba mu fa jóge ci ndam ak itam fexe ba xale yi ne ci ginnaawam am ci moom confiance loolu mooy li nga xam ne moom la yëglikaay bi gis tey ci mbirum Papa Sow ak combat bu mu jëm muy combat capital waaw combat capital la waxoon ci luy baax lay doon do roq bu set ndax ku ci ne daa am ci loo jóge am foo bëgg a dem ndax ku ne xam na ne Papa Sow Ama ko mujj a daan te bëgg na lijjanti loolu c'est tey tam ku ne xam ne guy gi moo ko mujj a daan kon jàppal ne combat la boo xam ne bu nar a méttee métti la waaw damay jàpp ne nag ci benn côté mën naa ne xëy na Papa buy bëri si bëri ne day tontu kii wala mais day bëri parce que combat am bu capital waaye ko ci xaaraale mais nag ñu ngi leen di wax daal seen combat boobu di que le meilleur loolu mooy làmb di nuyu ñëpp xule di ñaanal ñëpp jàmm di balu ñëpp àq ci juum juum yi parce que des fois ñu juum di bal ñëpp àq di ñaan yàlla rek mu def ñu jàmm def ko ci Sénégal yëpp di nuyu suñu sopp yi ñoom Ndongo Fall ñoom Mbacké Kébé ñoom Benzema Youssou Ndoye sama xarit l'international ñoom Saliou Ciss ñu ma leen di nuyu ay tuuti yaay Sarr Khadiros ah ñoom Fatma Fall fu ci waay nekk rek Awa Diop Touba Mbacké du ma ko mos a fàtte moom tamit saa suñu maa ngi koy bégge di ko ñaanal jàmm Lamine bu ama seen ñoom Issa di nuyu ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm ah, yàlla na jàmm di tamit ñu mel ni ñoom Mor pour parcelle ah ñoom ñëpp maa leen di béggee ñoom euh, ñi nga xam ne nii ñoom ñooy góorandoo yi les amateurs maa leen di béggee ñoom ñëpp tamit di ñaan daal Sénégal yàlla na fi waaye Amdi Moustapha tamit ku ne xam ne ni suba day ngénte Amdi Moustapha bu Parcelles Assainies waaw suba lay ngénte soxnaam fa nga xam ne moo ci parcelle ñu ko ñaanal yàlla xew moom yàlla na ci yàlla def jàmm rek moom am di Moustapha di suñu xarit di xale boo xam ne vraiment jeune la boo xam ne ni daal bu am ambition la bu dëggu la bu xam ne tamit vraiment ah la mu ne da koy wane ba ñëpp xam ko kon am di daal ñu ngi lay ñaanal yàlla sa soxna soosu ak seen bébé boobu yàlla na ci yàlla def barke ba yeneen toppaat ci barke yonent bi sallallahu alayhi wasallam di la ñaanal jàmm bu a baax waaye di ñaanal tamit jàmm xulal tey ki nga xam ne moom a maquillé muy ah, jama jama saar bu mbuur maa ngi koy bégee bu baax a baax jama li ñaanal jàmm di nuyu waa Equivox yëpp daal